am na lu ñu dégg sànq loo xam ne ci aw nit bu jóg di di di woo waa Ngor di woo ñeneen ñu dul waa Ngor pour ñu daje fa suba ngir ay fitna ñuy wax ne na ñëpp am fulla ak fayda taxaw ak responsabilité di wax ne ñun Ngor jàmm kese lañ fa bëgg wow ñu kenn mu fay ñëw du ñu fa andil fitna képp ku fay ñëw boo ñu mënee indil jàmm moo ñu gënal ndax ñun Ngor jàmm lañ bëgg Ndakaaru jàmm lañ bëgg réew mi jàmm lañ bëgg dinañ continuer nag communiquer ak jeunes yi ak jigéen ñi ñoom ñëpp wax leen ne leen fu waay mën a am accès de pour accès pour communiquer dem fa communiquer wax ñëpp ne leen ku fiy ñëw na fi indi jàmm ko amul jàmm joo fa indi nga toog sa kër ndax ñun jàmm la ñu bëgg suñu dëkk jàmm la ñu bëgg ci réew mi jàmm la ñu bëgg ci ci ci Ndakaaru loolu ñu ngi ciy sant yàlla dinañ continuer également à mettre en place des actions yoo xam ne day consolider jàmm ci dëkk boobu waaye également mobiliser les jeunes à participer à la construction nationale ñoom ñëpp ñu xam ne ci réew mi lañu bokk kenn beddiwu leen ci réew mi lañu bokk dañ ci am cër te itam waa réew mi itam xam nañ ñoom am nañ ci cër ñu joxante cër ànd ci ñun ñëpp lu ngir jàmm delluwaat ci ci Ngor ak ci Ndakaaru ak ci réew mi yëpp